jubluwaay bi doon live mais c'est que euh, waxtaan la woon waxtaan laayante biir ndaxte yonent bi saa moon jàngale ñu ad diinu nasiha mu ne waxtaan diini bi du leen lu may laayante biir n'est-ce pas donc euh, damay xool rek euh, korité bi muy le prétexte bi nga xam ne moo tax ñu def live bi xaw ma ndax yéen mais jullit yu noru moo yëpp war nañu am problème pour pourquoi Sénégal mënuñu julleendoo ñun te ñu ñëpp ne ay jullit lañu bu doon euh, problème mu doctrine la euh, duñ ci def kon live bu doon dañoo ne kii dafa ne man kat malikit laa ki ne man shafiit laa ki ne nangam laa ñu xam ni su dee base claire ci wàllu mazhab la yi teg seen uute soo ah, su du ñu am problème waaye Sénégal euh, suñu uute du wàllu mazhab du wàllu gisin du wàllu problème mu fiq nest mbir mi euh, crise de confiance la entre les musulmans il faut qu'on le dise n'est-ce pas lu tax ma ne crise de confiance la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jàngal ni ko moom woor na ak ay saxaabam benn aarab yu jóge ci désert ba di yéeféer ñëw fekk jullit ñi mu leen meen da ngeen doon seet weer wi démb gaa ne ko wàll laañ ko seetloon dañ ko de mu weer bi de démb man gis naa ko euh, ci désert bi ne ko yow mi gis nga weer mu ne ko man mii de kooku du jullit yow mi ne ko ndax mën nga seede ne yàlla yàlla kenn la te yàlla am na mu ne ko seede naa ne yàlla kenn la te yàlla am na mu ne ko ndax gëm nga ni euh, man mii maa yonent yàlla bi mu ne ko man gëm naa ne yow yonent nga ñoom saa sam ne saaba yi wari leen waaye léegi may laaj doomu sama gaañ yi may laaj euh, nañ am jàngat tuuti ci waxtaan boobu maanaam un bédouin qui n'était pas musulman moom moo wari loo yonent yàlla fii Sénégal du question de euh, bédouin wala du question de yéeféer fii Sénégal ay jullit ay imaam yoo xam ne xam nañ leen ay nit yu baax yu maandu yu ragal yàlla yu am xam-xam ñoom ñooy wax ne gis nañu weer bi nit yi kon ne ñoom dañuy kon ne woor waa lii nag mbokk yi war nañ ci am seetlu bu baax a baax lii kon ça signifie que euh, ndax yéeféer moo wari loolu yonent bi sallallahu alayhi kenn rek la may ni ko yow moom bul bu ko su la waxee information bu ko jël mooy ki nga xam ne naafiq la bu dee kon Sénégal egg nañ ci niveau bi nga xam ne euh, sa ay mbokk jullit buñ la joxee information yow da ngay bañ a woori ndax démb moom wax dëgg yàlla euh, man c'était extraordinaire j'ai entendu l'imam euh, de de sax de la mosquée omarienne j'ai entendu la famille Dramé j'ai vu et revu si biir Sénégal ñu bëri ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ay imam lañu ay nit yu baax lañu n'est-ce pas wax ni gis nañu weer bi ba tey ay nit taxaw na ñoom non non maa bañ sama kilifa wax ko donc kon foog ñu am taxaw seetlu léegi nag nee naa naafiq rek mooy ki nga xam ne euh, wa in jaakum kon alxuraan ba ñu ko jàngal naafiq ki nga xam ne defkat lu bon la bu la dikkale ci xibaar mu ne leer leer lu ko bu ay jullit taxawee ne ñun ñoo bañ wariwuñu ci kaw seen mbokk jullit bu leen jox information te dañuy mottali suñu koor Macky ñoo jàppee ñooñ joxe information bi ay naafiq wala ay nit yoo xam ne seen kàddu jar sa durgone li nag dugguleet waaw li dugguleet ndaxte suñu xoolee réew mi da xam ni euh, sociologie réew mi euh, naafiq fi bëri rek ak naxante waaye suy wax julit julit mooy ki nga xam ne mooy ki topp yonent ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dama ne ñépp ñu topp yonent bi sallallahu alayhi euh, seen wareef mooy seen bokk julit bu leen joxee xibaar ñi mën a am rafet njort ndax yonent bi sama alayhi ne na ñaari jikko ngi nii jikko gënu koo tedd jikko yi mu ne xussu zanni billahi wa xussu zanni bi ibadillah mu ne rafet njort ci yàlla ak rafet njort euh, ci jaamu yàlla yi donc kon Sénégal bu ñu eggee tey fii nii et du benn yoon du tey jii kese duggulet yàgg na fay am histoire nag ñaari koor il faut tam ñuy fàttali senegal yi euh, du jamono mag ñi ñoom El malik Malick ñoom Serigne Touba ñoom El Hadj Abdoulaye Niass ñoom Omar Ndar Seck Thiénaba ñi bañ fii nekk ñoom Cheikh Abbas Sall dama ne jamono boobu ñoom sëñ Babacar Sy jamono fii Sénégal amul ñaari koor. mosul am ñaari korité musul am ñaar tabaski pire encore tubaab bi fi nekkoon di kilifa nekkoon kilifa le gouverneur moo doon def télégramme envoyé ko à toutes les maisons religieuses nag Sénégal ñoom ñëpp ñu woori te tubaab bi yéeféer la woon li tam foog ñu bàyyi ko xel donc lii c'est un phénomène nouveau bi nga xam ne defagu fi 30 wala 40 ans Sénégal n'est-ce pas kenn ku nekk euh, jàpp ni sa kilifa kese mooy kilifa ñeneen ñëpp ay yéeféer lañu ndax lii kese moo mën a justifier lu tax sa mbokk jullit na la gis naa weer bi nga ne sama yoon nekkul sama kilifa ko ko tey gis naa sax euh, lu gën a grave euh, kenn ku ne moom su gisee weer bi fàng si bëtam su kilifaam wax ko ne ko woril moom du wori li c'est le comble de l'imbécilité léegi nag su ñuy xool nag euh, taxawaay gi ak melokaan bii nekk société bi nekk Sénégal il faut ñu taxaw jéem a xool solution solution ci wàllu boobu ñoom Pa Iyane Thiam jëm nañ ut solution n'est-ce pas euh, jéem na créer commission waaye dafa juum depuis la base de sa création ndax bu créer commission yaakaar ni commission bi mooy murit yi ak tijaan yi julleendoo mu dem seeti kër murit yi kër tijaan yi ak xaadir yi leen kaay la defar commission comme ça ñuy woorandoo di woorandoo euh, fàttali Sénégal du ay ay tuuti tijaan kese fi nekk du ay kese fi nekk du ay kese fi nekk ak ay laayeen am na fi ñuy xamee gëmuñu tarixa yi ñu ngi fi am na fi ñuy xamee ay salafit lañu n'est-ce pas am na fi ñuy xamee ay waxabist lañu am na fi ñi nga xam ne sax ay siit lañu donc ñun ñëpp suñu leen bëggee bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi côté wax dëgg yàlla euh, julleen doo kon du mës a am kon commission boobu dafa échoué depuis sa base ndax ñi mu sélectionné ak ñi mu génnee moo tax mu mu échoué et ginnaaw loolu it ñi ko bokk tamit dañoo gëmantewul waxuñ dañoo dañoo gëmantewul ndaxte euh, ku mel ni Pa Yane Thiam yàlla na yàlla euh, rafetal ko yàlla na yàlla yokk ko leer nest donc bu demee ba moom muy wax ne am na fi mu bokk di génn ci commission bi di wax ni gis gisuñu weer bi mottali leen ba pare ëllëg sa moom mu dem julli ji si mosquée ma ne moom Fuuta la ak mooy këram nga xam ne kon il problème problème bi nag malaise bi ma dama koy xool euh, dafay dëggal rek ni euh, Sénégal fii ay jullit ñoo fi tumurange fii jullit ñoo fi bëriwul ndax jullit mooy ki nga xam ne euh, dafa wóolu mbokk jullitam gëm ni jullit jullitay mbokkam n'est-ce pas am yaakaar gën a bëgg mbokkam boppam ah, bu dee gën ñoo bëgg suñu ay mbokk suñu bopp rek eggaguñu si islam tey man dafa am kii xam ne dama ma wori mu ne ma yow xanaa doo taalibe doo doo bàyyi ma ne ko ankay ah, mu ne ma waa Kaolack wariwuñ ma ne ko mais sa waa Kaolack suñu wariwul et alors ma ne ko man waxuma sax ibaadu wala wala quelqu'un bi nga xam ne murit la wallahi azim bu taxawee ne gis naa weer bi doyloo naa kàddoom doyloo naa waxam te damay wori ndax yonent sa sasam la ñu jàngal li fi gars yi def fi Sénégal nag dama ne euh, topp yonent bi rek moo fi tumuranke maanaam yonent bi moo fi bëriwul taalibe Sénégal moo tax ñuy def lu ñu neex léegi nag coow li mooy ban solution la ñu mën a am ci lii man lii gëw ma ne dina am solution euh, ci lu néew wala ci lu gàtt lu tax ma wax loolu dama joxe exemple bu ndaw le malaise est très profond n'est-ce pas euh, le malaise est très très très très profond euh, xool exemple bu ndaw Sénégal ñan ñooy suñu acteur religieux yi damay jël exemple bu ndaw bi xam exemple bi dafa dafa jar a jël exemple bu am solo la muy exemple Euh, télé franc-maçon yi ñuy wax euh, TFM n'est-ce pas euh, QG émission bu ñu defal man dama d'accordul si QG maanaam nanguwuma QG xanaa su ma waxee sax lan mooy baat bi QG fu mu jógee ça suffit pas quartier général en terme militaire sax mais peut-être beneen bi nga xam ne léegi gars yi ne kii complotiste la ak nouvel ordre mondial framason maçon je vais m'abstenir de dire la signification mais QG lan mooy concept bi n'est-ce pas lan mooy concept QG euh, trois choses gi ni nga xam ne yanul maanaa bu ñu jëlee émission bi nga xam ne ne pour euh, wane ñan ñooy sëriñu Sénégal yi waaw sama gars yi weeru koor pour jàng sëriñ yi la il faut il faut qu'on soit sérieux lan mooy li xew weeru koor mooy weer bu gën a tedd ci weer yi mooy sang weer yi nest pas mooy weer bi nga xam ne ci la yàlla wàccee alxuraan mooy weer bu yàlla révélé tawret ci la yàlla wàccee zabour ci la yàlla wàccee injil n'est-ce pas mooy weer bi xam ne du saa sam ne na saa yu ñëwoon mag jibril dañuy jàngandoo alxuraan lan moo tere ji dafay émission ci alxuraan ñi mën a jàngandoo alxuraan ensemble alxuraan kan la war a mën a choqué wala kan la war a mën a métti ci biir umma bi kan n'est-ce pas waaye ñi jël émission yi xam ne dañ koy jagleel ay sëriñ dans quel cadre ci cadre nawetaan dañoo jël di mettre en nawetaan suñu tarixa yi jël ay sëriñ mel ni ñoo nekk en compétition nit yi di daanu leer mel ni ay dof euh, ñii xasante wala parce que même ñu nekk ci plateau yi bu ñu normalee nite mais dans les réseaux sociaux maanaam ñen ñooy euh, reprendre waxtaanu euh, sëriñ si à quelle fin lan lañ ci jublu lan lañ ciy wax euh, concept bi moo jubul QG est-ce que seen ñuy invité ay ibaadu pourtant jullit fii am na ay ibaadu est-ce que ni ñuy invité kër diine Sénégal est-ce que ñoo tolloo ma am naa ay kër diine fii Sénégal yoo xam ne kenn invité wu leen fii jóge Sénégal donc mbir mi sax jugul sax pour indi benn communion ak benn équité Euh, entre les familles religieuses kan la ñu jox muy animé émission bi ay nit yu ñàkk fayda ay ñoom Abba ak xaw ma ay ñoom ñoom Pape Cheikh ak ay nit yoo xam ne nit yu tekkiwul dara ay ay ay fookat ay caaxaankat ñi ñu xam ci ay ci ay ci ay ci ci mbalax gi daal la leen xam ay góor jigéen ñi lañ jël émission jox leen ko leen yéen kat ah, dalal leen ay borom xam-xam ngeen laaj si diine dama ne bu ñu waroon dalal ay borom xam-xam sax ay borom xam-xam ñoo war a dalal. ñu doon woo laajte ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo waroon woo ay oustaz ñu waxtaan ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc émission bi concept bi sax lañ njëkk lañ njëkk faussé n'est-ce pas léegi nag si biir émission bi bu demee ba nekk léegi jongante ay nit di reprendre n'est-ce pas di reprendre euh, mbir moomu ñu nekk ci biir émission bi xam émission bu ñàkk fayda la ay xalif général di ci woote n'est-ce pas ay xalif général di ci woote di bëgg si lu ñuy wax seen sëriñ ay porte parole xalif général di woote di maye oto di maye xaalis et même xalif généraux la bu amee problème ci l'islam bu amee problème bu weer kenn du ci gën di wax sama gaay yi nañ taxaw defaat seetlu nañ taxaw waxaat xoolaat affaire yi ndax parce que mbir bi wax dëgg yàlla euh, ni mu nekk di demee nii euh, lii du yoon warul demee nii en principe warul demee nii euh, émission bi émission bu ñàkk fayda la liñ ciy def jubluwul boole doomu aadama yi dafa mel dafa am ñaari choses yoo xam ne ñu war a fàtte. dama ne fii kenn ku nekk sëriñ ki nga jàppee sa sëriñ man am naa sëriñ ku nekk fii am na sëriñ kenn ku nekk ki nga jàppee sa sëriñ wax dëgg yàlla euh, ni nga mel ci moom ak fi nga toll ci moom ak ni mu fooree sa xol ak ni mu kawee sa xel keneen kee tamit jàpp keneen sëriñam noonu la sëriñam toll ci moom noonu la sëriñam kawee ci moom noonu la sëriñam amee doole ci moom waa léegi est-ce que dans la place publique ndax dañuy fàtte ni télé ak Facebook bi ma nekk lii mooy place publique mais dans la place publique est-ce que yenn wax yi mën nañ koo yëkkati di ko waxtaanee mais attention man damay jox exemple sa bopp rek parce que mbir mu ne da ngay sa bopp man taalibe Seydi Ahmed Tijani la n'est-ce sama buntu Seydi Ahmed mooy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass dama ne man am na ay xasida yoo xam ne gis naa ko sama sëriñ ay tagg yoo xam ne tagg nañ ko sama sëriñ ñi ko tagg ci xaal la ñu nekkoon wala ci ci ci maqaama bu wér lañ taxaw di ko tagg dama ne xas xaste su ma nekkoon dama koy jéem a firi ci réseaux sociaux yi dinaa créer problème te dinaa tooñ jàmbur te am na ñi nga xam ne ci gis seen bopp jàpp na leen doy moo tax xasida yooyu dama amul droit ni devoir di ko waxtaanee ci place bi ndaxte euh, nit ki da war a xam li ngeen bokk ak li nga moom dans la place privée entre samay mbokk taalibe war naa ko mën a waxtaanee mais pas ci biir Facebook nga xamee wala ci biir télé. nga xam ne c'est l'espace publique il faut ñu comprendre lan mooy l'espace public lan mooy pénc mi ak lan mooy sa diggu kër bàyyi sa diggu kër bàyyi ma nga foon sama bàyyi amul morom ndax say doomu bàyyi kese fa nekk ak say doomu yaay waaye ci pénc ma ku nekk dafa am baayam bàyyi ko këram ku fa ñëw taxaw naa sama baay sama baay mais dafay andi problème c'est que lii c'est pas compliqué à comprendre mun naa si jël benn exemple bu ndaw bi nga ne moo koy moo koy lii firnde exemple boobu mooy coow li am jamono ji weesu diggante euh, Gana Messeré ak ki nga xam ne mooy Abdou Ndaw mu xaddamu baay boobu n'est-ce pas euh, mais c'est c'est terrible et dafay wane ni y a un malaise ci biir Sénégal bi dafay wane nii y a un grand malaise et que yi seen bëggee la seen waxtaan bi wallaay du dëgg xam lu tax ma ne du dëgg dama si xam ñu bëri ñi xam ne jàpp nañ ni ñeneen ñëpp seen ay noon lañu dañoo bañ seen sëriñ xam naa ko si ay murit xam naa ko fi sax si ay taalibe Baay xam naa ko fi si ñeneen ñu dul ñooñ si laayan si ak si ñeen ñi nga xam ne jàpp nañ ni ñëpp képp ku mënti wax dangaa bañ sama sëriñ nit ñoo dañoo dañoo suñu ay noonu lañu dañoo soxor dama ne dëkk nag bu nit yi déjà amee arrière pensée nit ñoo dañoo bañ sama sëriñ ma ne képp ku wax même objectivement kenn lu déglu te kenn lu faale lii mooy premier malaise Gana Messere dafa tooñ ku waxul dafa tooñ naa féq nga dama ne su taxawee di jël sëriñam di màggal kenn bañu su ko màggal sëriñ booy màggal sëriñ bul dëgg sëriñ jàmbur boo ko defee sax war nga sëriñ sëñ Touba santaanewul ñuy tuuti sëriñ jàmbur sëñ Touba ku màggal mboole mi walu yàlla ku dem seeti Masaalikul Jinaan jàng ko xam ni dafa ne su yoon yëpp ñoom ñëpp ñu ngi doon am itte yóbbu doomu aadama yi ci yàlla màggal leen fonk leen mais bu leen tudd nit ki tu n'es pas obligé tudd tudd sëriñu keneen piétiner ko ba pare c'est extrêmement grave ay taalibe di kontaan di jubilé ci nit ki lu mu dëgg nit wala lu mu piétiner sëriñu jàmbur li nga xam ne soo ko waxee xam ne dina metti euh, euh, taalibe keneen mais amoo droit n'est-ce pas amoo droit wax ko n'est-ce pas léegi nag bu nit ki waxee ko ay kilifam kenn woowu ko ne ko bàyyi li ngay wax bëggatuñu ngay wax si bëggatuñu nga tudd sax sëriñu jàmbur nga tudd turam sax mais du yoon n'est-ce pas donc euh, buñ ko deful ma ne ko kon li muy wax noonu am nañu mu neex ci biir këram am na ñi nga xam ne kontaan saa ñu dëggatee sëriñu jàmbur yi et loolu bokkul ci jàngale mag ñi bokkul si jàngale Cheikh du Bamba bokkul si jàngale Sidi Haj bokkul si jàngale El Hadj Abdoulaye Niass donc aujourd'hui euh, lii reewaande la ci tudd yi fu ja tudd sëriñ jàmbur di ko tuuti naan non non excusé du wax bi il s'est pas excusé euh, si man il s'est excusé il s'est pas excusé il est coutumier des fii et man wax dëgg yàlla man man xam naa ne du ko bàyyi dina ko continuer ndax déglu naa ko ci ay si si si si audio naa ko muy wax jaar-jaaram di wax ay coonam di wax sonnam te xam naa wax yii muy wax xam naa li mu koy andil ci teraanga lu mu koy andil ci ay kër lu mu koy andil ci ay oto wax yii muy wax du ko bàyyi n'est-ce pas il faut léeg-léeg muy caw sëriñu jàmbur yi il faut léeg-léeg mu mu mu mu dóor sëriñu jàmbur yi et que ñeen ñooñ nag ñoo war a am xel ndax gis naa nu ko gars yi di saaga ndey euh, Gana Messere yelloowul ñu koy saaga ndey ndax euh, jullit la même bu dee li mu wax waxu xamadi la waaye jullit la euh, nit la ñoo bokk réew mi n'est-ce pas waruñu saagante ay saaga moo dul yoon si kuy woote sax ne yow taalibe cheikh pourquoi su xasee sëriñ lu tax nga koy saaga ndey nit ki waroo accepter ñu lay tirer vers le baax nit ki waroo ko nangu donc dafa tooñ tooñ bi mu tooñ euh, kenn remonté wu ko Libreville n'est-ce pas yamul foofu benn muxaddam ñëw di ko tontu ñu wax euh, Cheikh Abdou Ndaw kooku moo gën tooñ kooku li mu taxaw di wax euh, wax bu grave la wax dem ba jël jàpp dog même bu dee si privé dama ne dama ne. Euh, même bu dee si privé ku ne suufiyanke nga jàpp kurus na da ngay jàpp dog pour defal ko benn nit nga def kook nga ñàkk ko def ba nga ko xalaatee am iraada bi kese fa nga moyee fa nga tooñee fa nga wàcce yoon loolu du taxawaayu taalibe cheikh rawatina yarekat yow nga ne yarekat nga ci yàlla euh, di defar ay doomu aadama yow waroo nekkoon ku émotif n'est-ce waroo nekk quelqu'un bi nga xam ne tu réagis au nan da ngay joxe ay doket nañ ko rey ak yàlla na yàlla allahuma damir lii da nga war a rus lii gàcce la ci ki xam ne ne muxaddam la lii gàcce la n'est-ce pas euh, dara gënu see ñaaw nag te dara gënu see metti muy bëtiku naan maa ngi baalu àq n'est-ce pas ginnaaw ba nga waxee ni képp ko deful war nga Cheikh Tidiane te yow après nee nga defoo ko n'est-ce pas donc euh, nañu ragal yàlla si lu ñuy def wax ju ndaw ñi kese andi na gis naa si su may compter ci YouTube gis naa si lu ëpp 30 vidéo gis naa ci ay posti posti posti post yoo xam ne kenn ku nekk mu ngi wax ñi di saaga ñi di xas euh, Euh, ñu jéggalu ak ñàkk jéggalu problème bi Babacar maa ngi lay ziar bu baax a baax problème du jéggalu bi de mais problème bi mooy wax yu ndaw yi euh, li mu mën a créer euh, ci ci ci malaise li mu mën a créer ci ci passion mais y a des passions extraordinaires dans ce pays n'est-ce pas passion yooyu c'est extraordinaire Babacar Sadikh nit ki warul emporté par la colère taalibe ki nga xam ne ne muxaddam la yarekat la maam dañ koo seexal amul droit naan dafay jël ay dog pour saaga pour pour rayaate amul droit sax di jël ay dog di sàkku leneen dul yàlla di nga wérd turu yàlla nit ki warul si sàkk leneen lu may yàlla lépp lu ci sàkku ginnaaw yàlla euh, moy na yàlla te bokkaale na yàlla kuy taxaw dafay jël euh, ay yaa muntaqi fois ak nan te dèjà muxaddam sax xanaa euh, yow soo fekkee war nga am bagage sax pour mën a éliminer kenn quelqu'un bu def la sonal te di tooñ di yàqee ci yoonu yàlla pas ku taxaw xas sëriñ mais waroo sax danañ koy jéem a yàq te koy jéem a rey loolu du du yëfu kilifa donc fee bu ndaw boobu rek dafa wane que y a un malaise entre les confréries au Sénégal lii moo tax ma gis ni euh, notre soi-disant paix entre les fois religieux elle ne tient que sur un petit fil sur un petit fil n'est-ce pas donc euh, nañ def très attention lii pour man tey la waalo gën a tey la gën a urgent nest pa pas tey la gën a urgent ndax dëkk bii kon wax bu ndaw bu ñàkk fayda wala écart bu ñàkk fayda de part et d'autre mën na taal dëkk bi may yeggali ma ne man QG émission bu ñàkk fayda la émission bu ñàkk solo la waaye xool leen euh, def nañ ñoom benn QG dañuy def QG ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom lañ tëjee nest ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam QG boobu kam moo ko yëg fii kam moo gis euh, Euh, dynamisme bi fii ci Facebook on a suivi ñëpp yu jëyee gis naa su gis naa fekk yu jëyee xam ne on a montré des imams ratib yuy tëb di jubilé comme ku dugal bi n'est-ce pas on l'a euh, a gis fii fii ay QG yoo xam ne nit ki dañ nit ki ay porte parole ñoo woote ne may nañ la cinq millions wala may nañ la oto n'est-ce pas donc QG euh, boobu si moom ci dëkk bu ndóol mel ni Sénégal n'est-ce pas nitu àdduna bi yëpp di waxtaanee lu am solo. ñun fii ñuy waxtaan ci jël sëriñ teg fee kii du moromu kii kii mooy moromu kii mais sëriñ yi dañoo mës a waxtaan ay waxu morom ñoom ñun dañoo wàcc yoonu sëriñ yi li ñu nekk di wax yëpp sëriñ yi sant ñu ko waxloo ñu ko mosuñu see ne n'est-ce pas donc ñun dañoo ragal yàlla QG nag biñ jël ne dañuy waxal yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn defalu ko poste kenn jubilé wu si kenn kontaanu si dafay tekki dara ni ko réew mii yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bëriwu fi ay taalibe fii réew bi nag bëri na ay tijaan n'est-ce bëri na ay murit bëri na ay laayeen n'est-ce bëri na xaadar waaye néew na ay taalibe yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc pour dire que euh, le malaise dans ce pays là il est énorme il ce pas bu fekkoon kilifa yi daje nañu li ma yàgg wax n'est-ce bu fekkoon kilifa yi daje nañu seet benn conseil bi nga xam ne ñoom moo leen dajale ñi mënoon waxtaanee mbiru lislaam kilifa bu nekk génn wax ak mbooloom ndax Sénégal fii kenn ku nekk am nga foo jokk kenn ku nekk am na ki nga gëm sa kilifa ne la mayetuma samay taalibe bugguma kenn wax ci sëriñu jàmbur nangam mayetuma kenn mu wax ci nangam ñi wax ci yenn événement yi nga xam ne nit yaa ngi koy wax parce que fii xibaar bu nekk ngi fi daw fii ku nekk ngi fii wax te wax ci si bëri ay fen la li si bëri c'est des mensonges yu ñuy wax yi nga xam ne pour tuuti sëriñu jàmbur la sëriñ bu nekk jéem a laver briser ces mensonges laa xam le carrément ne lii mësul am histoire bi mësul am mësul histoire bii mësul am waaye lii bu ñu ko defoon mun na am on va apaiser un sax les ndax dëkk bi chaque fois wax ko euh, dëkk bi euh, politique mënu koo taal n'est-ce pas mbiru waaso maanaam mbiru mbiru mbiru ay ay ay ay ethnie mënu koo taal waaye mbiru tarixa euh, tasawuf Sénégal on l'a trahi maanaam Sénégal fi ñuy wootee suufiyanke ñoo dul ay suufiyanke dañuy dund tasawuf te tasawuf ku koy dund munoo am lu bon loo ëmbal doomu aadama maa ngi joxe misaal sànq ci muxaddam boobu nga xam ne Kaolack la bokk n'est-ce pas sëriñam moom muy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass taxaw na ne moom bët bu muy xoolee jàmm mu ne nit du ko xoolee mukk jàmm di ko yéene lu bon waaw kooku nag mën nga taxaw na ngay def ay dog pour euh, pour pour yàq beneen doomu aadama bàyyi am na benn waajee xam ne ku ko noonoo woon la ku ko bañoon la Kaolack waa ji bés faatoo dafa am ay taalibe yoo ne mooy con yi nekk jamono bii rek si bëri taalibe yoo xam ne ñoo dem rek seeti ko da ko sëñ bi de diw moom mu ah, diw de dee na dee bu doy de sax dafa accidenté dee na ñoom dañu ko wax ak benn joie tellement que du ay julit ndax kuy kontaan ci malheuru beneen doomu aadama nekkoo su ak tarix boo mënti bokk tu es benn benn benn benn vaurien nga rek benn fans club nga buy dox ba mu ko waxee bàyyi fi mu taxaw bàyyi ne alhamdulillah waaye bàyyi yëg na ni bi mu wax euh, ñii comprendre ñu ko gars yi ñoo signé retaan genre kontaan mu laaj leen leen waaye est-ce que xam ngeen lu tax ma ne alhamdulilah kay ne ko ah euh, bàyyi lii kay dafa leer yow waa ji ni mu la ni mu la noonoowee ni mu la bañee ak li mu wax ci yow ak li mu def ci yow yëpp ah su dee kay da war sant yàlla bàyyi ne du ma mës a sant yàlla di kontaan ci deewu doomu aadama wala ci musiba bu dal doomu aadama loolu mënumaa kontaan loolu waaye damaa damaa peese sama xol gis li ma wax ak li ma def yëpp jàppalu ma ko dara lu ñaaw ëmbalu ko dara bon te man ko bëgg mbëggeel bi nga xam ne mbëggeelu jullit ak mbokku jullitam lii mooy message tasawuf mooy message bi koy jàng ci yoon ci yàlla insa buy wax ne li wax al ihsaan ndax ihsaan mooy tasawuf ihsaan mooy euh, suñ koy firi mooy yonent bi sallallahu alayhi li mu jàngale mooy joxal ku la xañ jokkul ku la dagg rafetalal jëme ci ki xam ne dafa ñaawe ci yow li soo ko mënul boolee amoo ihsaan te al ihsaan moom mooy al xaqiqa ku amul lii amoo xaqiqa ak foo mënti nekk da nax sa bopp rek léegi nag coow mbir mi dafa doy waar man mbir mi su ma koy xool damay yéemu euh, ñan ñooy ustaas ak sëriñ yi nga xam ne ñoom ñooy wax télé n'est-ce pas ñan ñooy wax tele ñan mun naa jàpp encore benn cas cas bu particulier cas bi xam ne cas bu présent la cas wu Ahmed Khalifa Niass ak ustaas Assane ndax dama gis benn post bi nga xam ne waa jam lañ koo def euh, di di soutenir euh, ustaas Assane Seck mais gisuma pourquoi ñu ko soutenir on n'a rien à soutenir ustaas Assane Seck man je comprends mel ni ab xale ba saa yu waxee waxta toj saa yu waxee ci ay masala créer polémique saa yu taxawee si plateau foog mu ŋàññ benn doomu aadama dugg ci biir famille am wala dugg ci ay waajuram mag la bi xam ne il est in il est de sa personne il est insolent il est indiscipliné lii mooy la réalité di ko ko waxul sa waay nax sa bopp da ngay nekk waxu waxu waxu waxu waxu waxu naxasaale waxu par loolu te ñu par loolu alhamdulilah nekkuñu ci ànd ak n'est-ce pas ay nit a ngi fi taxaw di ko béggee dañ koy béggee eh, ay di ak am xam-xam xam-xam lan mooy jeexitalam xam-xam amul jeexital lu may may la ragal yàlla may la nga mën a topp yàlla may la nga mën a dund ak doomu aadama yi si jàmm ak salaam ba pare may la nga am lu ñuy wax al adab maanaam teggin n'est-ce pas teggin al adab qabla kulli shay'in wa fii kulli shay'in wa ba'da kulli shay'in teggin boobu mooy lépp teggin soo ko amul li nga wut si xam-xam tu as perdu du temps da nga yàq sa jot waaye xam-xam bi nga am amul njëriñ daa mel ni jël mboole mi téere yi gën a kawe yi n'est-ce pas jël ko teg ko ci kaw benn ndiggu benn mbaam mbaam bi dox ak moom mbaam bi du jëriñoo téere yi Ahmed Khalifa taxaw ak benn oustaz ne ko yow man oustaz dama di jàppale man lii bii man dafa ma ça m'a pas choqué venant de Ahmed Khalifa Niass choqué wu ma euh, léegi nag li ma choqué mooy pourquoi ñoo def ay message de soutien ah benn oustaz bi nga xam ne oustaz boobu moo dem di di di jël xaalisu Ahmed xalifa bu dee oustaz bi mooy dem Euh, wax ko pour mu jàppale ko même bu dee wax ko pour mu jàppale ko Ahmed xalifa jàppale ko mu xam ni kii ab saay-saay la mu nangu jël xaalis boobu jël ko il devait s'attendre à toute chose venant de Ahmed Khalifa Niass toute chose nag laa wax donc euh, ñoom ñaar ñi taxaw waxante kii ne ko maa ngi lay jàppale kii ne ko man maa lay doxal sa ay yonent waaw léegi ñun lu si yoon ci loolu ñun la problème qu'on devrait poser du question bi ndax ñu ngi jàppale kii ñu ngi jàppale kii le problème mooy lu tax mu am ay émissions yoo xam ne Sénégal euh, pour ay sëriñ la déjà un ci jamono weeru koor secondo le contenu lu tax ñuy nangu parce que c'est pas une première fois ni une dernière fois lu tax kenn ku nekk su ñëwee ñenn si ñuy ñëw fii si télé bi chez les Tidiane comme si les Mourides ils vont être contents jéem a waay ne sama sëñ dafa garaaw et pour justifier que dafa garaaw il faut que ñu wax sëriñu kenn fii garaaw fii ce qui n'est pas normal nest troisièmement pourquoi ay nit yoo xam ay nitu diine ñoom ñooy animer émission diine bi ça di ça doit nous parler n'est-ce pas waaw léegi nag léegi nag comprendre naa ni Ahmed Khalifa kon dafa am ay ustaas yoo xam ne dafa di jàppale ma léegi je l'ai à travers l'émission am na ñu muy jàppale moo tax il n'a jamais une contradiction à la hauteur dafa mel ni gars yi dañ koo ragal mais alhamdulilah gis naa ne gars yi ragaluñu ko dafay jàppale gars yi dañ ko comprendre noonu donc on a un malaise grave si ku ni Ahmed Khalifa il est il présenté euh, présenté comme benn oustaz n'est-ce pas comme boroom xam-xam mais borom xam-xam dafay am sutura borom ko xam c'est des valeurs dafay am teggin dafay am yërmande dafay am ñeewant dafay am dafay am wàcc oyof n'est-ce pas euh, wax dëgg yàlla euh, ñun vraiment. Euh, il y a un grave problème dans ce pays chaque fois moo wax ko su ma ko waxee gars yi mer chaque fois ma ne dëkk bi dafa am ñu bëri ñi xam ne dañu war a utal vétérinaire mu leen di suivre ndax ñoom ak euh, mala yi euh, sorantewuñu li am xam naan ulaayka humul kal am dafa am ñi nga xam ne ñoom kal an am dañoo mel ni ay mala bal hum adal wala sax ils sont pires que les bestiaux mala yi ñoo leen tane alquran alquran dafay des di wax dëkk donc moom rajulun moom mufsid la n'est-ce pas moom mu ngi ci façade daiman il n'a pas varié il est sur sa même ligne et euh, il est appelé pour ça yaa ngi koy woo pour loolu donc aujourd'hui kon dëkk bi man dama ne euh, nous sommes en danger waaw nous sommes en danger bu dee nit a fii nekk di wax ci sëriñu jàmbur te kenn du ko woo ne ko bàyyil kilifa jàmbur yi ngay wax n'est-ce pas euh, lii déjà c'est un premier problème bu dee jullit ñi amuñu conseil bu ñu mën a dajaloo mën a defandoo ndax tamit bu ñu fàtte ni euh, waaw euh, waaw c'est vrai gis nga euh, lii mooy discours moom laay discours yu ay Basiroog ndeysaan sëñ bi moo fi ne sëñ bi nekku fii da ngay fen <laughs> sëñ bi nekku fi n'est-ce pas fii allahu subhanahu wa taala képp kot kese moo fi ne n'est-ce te allah boobu nag ki nga xam ne mooy buntam di soppeem di sang bi nga xam ne sëñ yi yëpp ba sëñ Tuubaa bi nga tudd ci kooku lay jafandiku di ñaan di ko naan dolli ma kookoy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dama ne bu ñu toogee ñun jullit ñi di waxtaanee loolu gëw ma fii ni kenn fii dina fi choqué gëw ma ni tamit kenn na fi am lu la métti mais yow nit ki dafa mën a taxaw ne sëriñ bii du dara sama sëriñ du moromam sama sëriñ mu ngi ci kawam yeneen sëriñ yëpp ay tuuti la tuuti ci kanamu kii ba pare taxaw nga yaakaar sooy waxee loolu kenn dina taxaw noppi ah, macha allah mais vous vous croyez quoi da jàpp ni yéen xanaa ay golo nekk dëkk bi xanaa. da nga mën a am luxe ak ak plaisir ak latitude nu la neexee euh, dammati ku la neex ba pare ñëpp ne gongo alhamdulilah mais quand même fa la ñu nekk ni ban dëkk la ñu nekk ba pare bay wax ay nit taxaw di impose naan kii dafa war a baalu kii dafa war a kan moo war a baalu ak ci lan la war a baalu li débat bi du débat ay ustaas bi man damaa mere sax ki baalu dama ko mere trop n'est-ce moom may déglu ndax dafay seetaan live yi dama ko mere sax moom depuis karaw yi dama ko mere n'est-ce waaye nag dama ne débat bi dépassé na euh, oustaz yeeg plateau télé yi débat bi débat kilifa yi la seen bopp de deux choses lu nag soit kilifa yi dañoo kontaan situation bii nekk instant yi ndax bugguñu booloo te ñu bëri la ñu commencé yaakaar bugguñu booloo nekk benn yëkkati yàlla teg ci kaw yëkkati yonent bi saa du ñëpp dañu nekk ci ginnaawam ndax lii dafa nar a yàq business religieux bu ngande bi nga xam ne mu ngi daw instant ci biir kër diine yi wala bokk kilifa diine yi dañoo daw sa responsabilité ndax nag buñ ko fàtte xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam la yonent bi na yéen ñëpp ay sàmm ngeen fii ñëpp ay sàmm lañ ñoom seen sàmm moo gën a kawe si yooyu bos waaye ñoo ñëpp ay sàmm lañu n'est-ce pas sàmm nag bu nekk yàlla na ko laaj li ko dénkoon fii euh, fii ku fi dee ci sëriñ si sa njaboot bi ñu la dénk waaye njaboot gi xanaa nag war nga ko réglementé n'est-ce pas nit ki waruñu toog di dégg sur la place publique ay mbir yaa xamee coow la te te kilifa yi génn ñu def déclaration ah euh, nee naa gars yi na def très attention bu dee déjà y a des y a des y a dafa am yu yomb dafa am yu yolom suñu diggante yi n'est-ce pas euh, dafa am ñu yu yolom suñu ay diggante n'est-ce pas euh, Ousmane Noreyni non non kilifa yi dañoo waxul dara maanaam dañ ci waxul n'est-ce Euh, dañ ci waxul dara te ñàkk wax bi dafay alimenter euh, ñenn ñi nga xam ne wax dëgg yàlla euh, ñu ngi ci biir caniveau yi ñu ngi di wax ñu ngi di ñu ngi di dund parce que man gis naa ay taalibe nga xam ne sincèrement ils sont de très bonne foi gis naa ay taalibe tijaan li may wax nii je le commence dans la tarixa tijaan da gis yi xam ne xalaat yi ñu am ci yeneen tarixa yi ci ñoom Serigne Touba si ci ci yeneen tarixa yëpp. mais xanaat xalaat yu tordu la c'est des xalaat tordu te xalaat yooyu booy yooyu ils n'ont pas inventé n'est-ce pas ils l'ont pas inventé xalaat la yoo xam ay nit ñoo leen ko wax ñoo leen ko jàngal seen ay soit soi-disant cheikh wala muxaddam ñooy toog ak ñoom leen xamal ne sëriñ diw du dara sëriñ diw moo ñëwoon fii suñu sëriñ moo ko dimbali sëriñ diw ba mu ñëwee sëñ Haj Malick sëñ daf koo raay mu am nangam sëriñ diw ba mu feebaree dañ ko andi sëñ alaaji sëñ Babacar sëñ nangam sëñ diw dañ ko andi si Baye Niass Baye Niass mu ko xoolee laal ko si la xaw nangam sëñ diw dañ ko andi woon si nangam mais lii c'est des histoires c'est des xam ne ay histoires yu fausse la yoo xam ne ñu ngi koy jàngale ay xale te xale yooyu ñu ngi koy gëm di ko kon ne véhiculer xale yooyu kenn yaru leen dañuy génn andi ko sur la place publique et la place publique est une bombe lii il faut ñu bàyyi ko xel de même manière am ngeen xale yi xam ne ñu ngi si ay daara ñu ngi ay murit lañu seen ay cheikh ak seen ay magu taalibe wala seen ay jëwrin leen jox ay histoire sëñ bi kenn du moom moo jàpp seen diw mu ko defalee nangam si seen diw tàq moo nang seen diw si la amee nangam si seen diw yoree nangam mais yii nii yii xam nga lu muy créer je suis désolé n'est-ce li muy créer mooy ay sëñ yi nga xam ne c'est des leaders manipulateurs ay taalibe yoo xam ne ay fans club lañu ak ay nervi maanaam c'est des c'est des c'est du bétail li ñuy wax le bétail lii lay créer et nag wax dëgg yàlla euh, tasawuf bañ ciy dugg euh, du woon mbiru bétail li ko tax a jug maanaam li tax a jug tasawuf euh, du bétail du créer bétail du créer ay fans club organiser nawetaan nest pas Euh, du organiser nawetaan nest pas du créer ay GIE euh, euh, nañu bàyyi xel bu baax a baax que la place publique ñëpp a ko bokk et la place publique wallahi che Youssouf Khadim Youssouf mbir yi dafa doy waar gis nga damay wax ne ñun man tasawuf laa nekk tasawuf may dund moo tax dama am bunt sama bunt ci tasawuf tarixa tijaan la sama bunt ci tarixa tijaan boobu mooy Maulana Cheikh Ibrahim ñas waaye terewul respect bi ma am ci sëriñ yëpp c'est la même chose ba que gis ñi ñëpp ay émanation borom bi lañ émanation wu taw féexu yàlla ndax yàlla bu bëggee jëriñ askan dafay tàbb ay nit sol leen ay mbir jox leen ay xam-xam yéeg ci ay maqaam ko jariñal doomu adama yi donc même respect boobu laa am euh, ci Seydi El Hadji euh, bu ma am ci respect bu profond la et dama jug pour xeex ak nit bi xam ne daf koy jéem a doyadil ce même respect laa laa am ci Cheikh Ahmadou Bamba fierté la pour man et que doon jéem a liggéeyam damay jug pour jaamaarloo ak yow en réalité dama gis ñi nga xam ne ñu ngi dox di wax ñu si ëpp pour man dañoo nekk ay noonu Alaaji Malick ak ñoom Cheikh Ibrahima Niass ak ñoom Sëñ Touba ndax seen jàngale. jàngale bu pacifique la jàngale bu jàngale bu sell la jàngale bi nga xam ne yàllaay kese la seet jàngale tooñ bokku ci euh, mettital doomu aadama bokku ci tuuti laate bokku ci donc il faut nag euh, ñuy waxante dëgg bon man moom koy wax rek man ay problème bu xuloo histoire man j'ai j'ai l'habitude maanaam c'est les idiots na ba dem Taïf di oo ñu koy saaga di ko xas di ko dóor ay xeer di ko di ko di ko gaañ ñu wax dëgg yàlla yonent bi li mu daj ak lu góor yàlla yi daj ñoom Bilaal ak ñeneen ak ku dul ñoom wax dëgg yàlla man gëm naa ni ñun duñ ko mës a doj duñ ko mës a daj si diine donc moom ñun ragaluñu si n'est-ce pas dama ne ñu mënuñu tiit yàlla binduñu pour ñuy tiit loolu ma bëgg mu leer ci bopp gars yi maanaam lu ñu am suñu amee lu ñuy wax ci dëkk bi wallahi azim dañ koy wax et advienne que naa ni euh, bi il faut ñu xalaat euh, balaa mu ñuy bett chaque fois ma ne di nga nouvel ordre mondial beeg franc-maçon yeeg bu musiba yi yëpp lenn lenn lenn rek moo leen mën na jaamarloo ak ñoom mën leen mooy jullit yi nekk benn jullit yi nekk benn pare organisé aujourd'hui Sénégal jullit yi nekk ñu benn organisé wuñu def ñuy fàttali yonent bi sallallahu alayhi li mu waxoon ci hadis ne sama xeet dina divisé wu ci 73 groupes 72 yëpp safar lañ jëm ba mu des benn war nañoo tiit ñun suñu bopp war nañoo xalaat bu baax a baax dono yu dono bi nga xam ne dono bi amuñu droit fooye ko amuñu droit ay télévision yi xam ne qui sont muf war ñu nangu tamit di ko may mu taw di jéem am lu mu yàq chaque jour dugg fii dugg fii génn fële n'est-ce pas lii ñu ci bàyyi xel bu baax a baax léegi nag le problème mooy ndax ñenn ñu lu ñu ne dëkk lenn kese ndax loolu moo mën régler problème Sénégal je pense pas ndax la forme républicaine bu ñu am tey jii état amee di si ëpp ay saay-saay lañu ay franc lañu wax dëgg yàlla euh, ñu pour dimbali diine n'est-ce pas donc ñu mën a si wala la deuxième solution solution bi xam nest man maa ngi gis ay kilifa yàlla sincèrement man j'ai un problème man j'ai un problème pour ñu wootaloo koor bi mu weer dafa nekk lu leer koor bi am si biir xalif yi di ci wax man j'ai un problème sincèrement par rapport à ça lii moom vraiment ça aujourd'hui donc ci kaw bu désamorcé wul pendant qu'il encore temps bu ñu bàyyee wax gi su ak dem bi réseaux ndax lii mooy le problème réseaux sociaux yi dafa am benn ampleur bi nga xam ne seetlu ngeen dañuy indi benn problème bi nga xam ne problème Eh, ñëwaat na yéen may dégg wala waaw ah, ba passé de live ñu supprimer live bi n'est-ce pas euh, baaxul de waaw waaw ñëpp a ngi koy wax de gaa yi xam ne euh, borom liggéey borom liggéey liggéey tàmbali seen liggéey et donc yaa par nañ ko nañ ko daañu tàgg ko rek incha allah euh, laa doon def démb mais démb daa dama ko reke man vraiment j'ai pas pu faire donc merci pour jéglu on va le faire incha allah euh, semaine bi incha rabbi Euh, saaku gars yi la rek saa saa bëgg fàtte naa ni wax naa sax benn compte One Africa donc euh, c'est comme Facebook euh, maa ngi koy conseillé mën a waxtaanee réew parce que réew mi nag réew ko de islam bi bokk fu ci bàyyi xel